alfaqihu nee na am na yuy tax a mucc ci mbóolug bàmmeel am na itam yuy tax néew bi taseeg mbóolug bàmmeel kon nag warees naa xàmmee yi nga xam ne day tax a mucc ci mbóolug bàmmeel ak ya koy waral am na yent yoo xam ne nee na ku bëgg mucc ci mbugalug bàmmeel war nga leen moytu bu baax a baax ndax dañuy waral mbugalug bàmmeel fen mooy benn ba wor maanaam ñàkk a sàmm kóolute mooy ñaareel ba ñetteel ba mooy ràmbaaj ñeenteel ba nag mooy ñàkk a sàmmoonteeg bu demee ca wana wa teylu ba sobe sa génn mu raxas ko bu jógee tuur ndox ma muy saw ma mbaa lu bokk ci sobe sa tax ci yaramam mbaa ci ay yéreem nga xam ne mën na ko bañ a julliwaale ba noppi nag mu julliwaale ko loolu bokk na ci li waral mbugalug bàmmeel kon nag saa yu demee ci wana wa nay teeylu ba lay génn génn mu raas ko ba mu set te moytu di gaawantu ba nga xamee ne bu jógee ba noppi am lu génn nag ca sobe sa taq ci yaramam mbaa ci yéreem mu julliwaale ko te mënan naa tàggook moom di sax bépp sobe boo xam ne mënte tàggook moom rek jéggal nañ ko ko moo xam saw la moo xam xayta la moo xam leneen la bépp sobe boo xam ne rek yàllaa ko nattoo bis bu ne mu génn benn yoon gën gaa néew ci guddi mbaa bëccëg du néew néew benn yoon dal ci ay yéreem mbaa ci yaramam rek jéggal nañ ko ko waaye nag mën moytu sobe si ko nag loolu lay waral bugalum bàmmeel nee nañu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxon na ne ñaar ñi de ñi ngi leen di mbugal ci biir seen bàmmeel yi te la tax ñu leen di mbugal nit ñi jàppewuñu ko lu am solo ne kenn ki da daa rambaaj kon rambaaj day waral mbugalum bàmmeel ka ca des nag mu ne da daa wut laablu bu ma saa dem ca wanawa mooy dara gaaw a jóg ba sobe sa takk ko mu julliwaale ko mu daldi samp nag ay bant yu tooy ca seen bàmmeel yooyee ne samp gim samp bant yu tooy ci seen bàmmeel yi dana woyefal seen bugal ba kera bant yi di wow loolu moo tax nag ñu bëgg ay armeel lu bari bari ñax li fek ñax ma ngi toy rek di bañ ko bay bayyi ci ñax mu toy ma ndax yërmande la su wawee kong nak ñu dor ko bay ba mu set yi tax am nak bàmmeel bu leer nañ fekk fa xewal ak jamm yent la yo xamne yu mata samonté la ba ci julli juroom diko défé ci seen waxtu ak nañu ko santaane muy benn bari la saraxe muy ñaar bari la jàng alquran muy ñett bari la sàbbaal yàlla subhanallah mbaa lu ko nuru muy yent yent yooyu day tax boo duggee ci sa bàmmeel mu leer naññ nga fekk fa lépp luy xéewal ak jàmm